asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji mbégi jëm ak Mame Ndokh TV mbokki nag tey maa ngi toog ak le président euh, association des diabétiques euh, di Modou Bass euh, tey nag mu am lu mu bëgg a indil waat Tiwaawan leeral Modou maa ngi lay mhm. lan mooy lan nga ma doon say tànk tey avec récépissé zéro euh, quinze zéro cinquante euh, ñoo bëgg a yëgal diabétique yi ñu leen buñ demati Thiès buñ demati Dakar buñ dem fenn yem Tivaouane parce que am na ay diabétologue yoo xam ni état bi mu doon indi fii ci Tivaouane ci sant directrice bu hôpital bi di ci sant euh, médecins yi nga xam ni ñoom lañu ñu booleel ki ci njëkk mooy professeur Touré docteur docteur Ly ak docteur Ly mi nga xam ne moo yore affaire lépp loo xam ne ay problème jóge ci jabet waaw ànd ko ak docteur Ly ñu ngi sant aussi infirmier yi ñu leen jàppale bu baax daal ñu ngi ñuy bu baax daal hôpital bi daal vraiment ñu ngi sant ñëpp di sant Yaba Samb aussi mi nga xam ne Euh, docteurs yi ñoom la ñu moom la ñu jël euh, mu jigéen ñi trop nag waaw bu amee. kon daal maanaam képp koo xam jabati nga dëkk Tivaouane loo daan wuti Dakar wala Thiès jaratu ko mën nga yem Tivaouane. déedéet jaratu ko mën ngaa yem Tivaouane. ay spécialistes ñu maanaam ku bokk ci association bi moo koy bénéficier woo wala ak même boo ci bokkul wala déet. non association ku ci bokk moo koy bénéficier association bi bokk ci yomb na. 2000 mhm. francs ngay mhm. daggee 2000 bi da nga def ko ci kees yi mille francs yi ci def dañ koy dimbalee ñi nga xam ne daloo néew doole mhm. te lu jóg aussi lu jóge ci biti aussi ñëw dañ am na kees bu ñu koy dugal di ci jàppale ni ñi mën na loo dem daal ba hôpital bi incha allah képp kiy diabétique di ci gis sa bopp bu baax a baax a baax waaye nag ci kaw nga bokk ci association bi euh, euh, jënd carte de membre 2000 francs maanaam ku bëgg a bokk ci association ban numéro ngay woote 77 waaw 652 71 01 70 744 vingt 24 mooy sama numéro. Hmm. waaw jamono yi di ñëw nag am na manifestation yoo xam ne bëgg nañ ko maanaam ay waxtaan yoo xam ni docteur yi pare nañ ñun rek la ñuy xaar ñu présenter liste bi. Hmm. bu ko defee ñu euh, toog ak ñoom waxtaan ak ñoom. Hmm. waaw ñu gindi ñu en ki ci bokk daal. du bokk mukk ci bokkul. loolu daal ici au niveau de Tivaouane. ici au niveau de Tivaouane waaw département Tivaouane bi yëpp daal. yow Modou Bass yow yaay président. maay président. Mhm. waaw man maay président. am ngeen récépissé. effectivement te te docteur yi aussi ñu ngi leen di jàppale. ñu ngi bu baax kay. bi saf bi ñëpp ñu ngi jàppale. ñu ngi leen jàppale yàlla waaw. jërë ngeen mi ngi noonu Modou Bass tey moo fi ñëwoon a di yëgal képp koo xamante ni jàngoro jabet daf laa dab boo daan dem Dakar mbaa ngay dem Thiès bàyyi ko nga yem fii Tivaouane boo yemee Tivaouane bokk ci association des diabétiques incha allahu rabbi dina la jël en charge wan la ni ngay jaarale yoon boole la ak yi ñu lay toppatoo normal ba dootu am benn problème dootu jar dem Dakar dootul jar jëm Thiès jërëjëf ñu ngi lay sant baax di la gërëm jërëjëf Modou jërëjëf Modou jërëjëf Modou euh, euh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf Modou alxaaji mi ngi jëm ak maam ndox ti bi